ban mu nekk mooy mooy sa début donc il faut nga def ay lecture combinée pour trouver ko donc c'est pas simple à déterminer. d'accord loolooy moo sopp coow a déclaration de politique générale bi Ablaye Mbow ndax nag jur na coow ba fi mu ne nii mënees nañu jàpp ni rek waaye askan wi ñu njëkk a génn ni règlement intérieur yi baaxul. Mhm. ca noonee nag ca la ñu gis ni euh, waa Benno riposté nañu ne Ousmane Sonko dafa war a defe ji declaration de politique général ca noonee moom le premier ministre mu ni. nañu régler règlement intérieur yi bu ko sinon dana ko defi jee feneen muy loo xam ne naka lañu mën a def rek euh, ba mën a saafara boobu boobule mbir ak déjà lu waral ñu jékki rek waaye yeewu askan wi génn di àddu jëmale ci règlement intérieur yi. xam nga euh, du lu bees fan la coow li jógee buñ koy xool chronologie bi. Hmm. c'est le député Guy Marius Sagna moo bind lettre Ousmane Sonko ni ko mënoo ñëw assemblée di fa def déclaration de politique générale ndax règlement intérieur u bi ñuy supprimer la poste de premier ministre dañ ko dindi woon les dispositions yi ni da ngay def si déclaration de général générale mm-hmm. yi amoon motion de censure yooyu yëpp dañ ni ak question de confiance bi ginnaaw supprimer nañ premier ministre mm-hmm. ñu def benn révision constitutionnelle def loi organique kon euh, bu ñëw ci règlement intérieur modifié ko ni yii de génne nañ leen ci règlement mm-hmm. biñ leen génnee ñu delloo si waat premier ministre Amadou Ba su Amadou Ba mais defuñu la procédure pour ñu réintroduire euh, disposition yooyu mu bindoon Amadou Ba Guy Marius ni ko yaa ngi bëgg a ñëw assemblée mais munoo fee ñëw ndax règlement intérieur bi day soppeeguñ ko te moom moo prévoir disposition sur le euh, la déclaration de politique générale mhm. disposition sur la question de confiance ak la motion de censure ndax ñett yooyu ñoo ànd en réalité ndax président premier ministre su defee déclaration politique générale mën na ko suivre avec la question de confiance mhm. comme motion de censure bi constitution prévoir na leen certes mais règlement intérieur bi moo koy appliqué tey mën nga dem ci constitution nga liir nan la ñuy saisir euh, conseil constitutionnel ak yépp mhm. mais boo demul ci loi organique bi boo ko déposé dañ koy annuler constitution bi waxul mukk dafa ni premier ministre da ngaa war a def déclaration politique générale mais waxu ko kañ ca règlement intérieur déedéet ca règlement intérieur ba njëkk ba moo bindoon ñetti weer boobu dindi nañ ko donc premier ministre moom nan lay duggee foofu te xamul sax délai bi nga xam ni moom la am parce que délai bi dindi nañ ko léegi man mii bi ma ñëwee le règlement intérieur bi ñu ma jox mooy bu falsifié bi en tant que kit pour député jox ma règlement intérieur boo xam ni disposition yi ci nekk nekkul ci loi mm-hmm. te loolu la ñu waroon a poser la question mm-hmm. comment une assemblée peut faire circuler un règlement intérieur boo xam ne ay dispositions yi ci nekk loi bi waxu ko question boobu lañ bëgg a occulter ñoom ñoom xam nañ li ñu def de parce que xam nañ ni loolu tey jii suñu déposé woon une plainte contre X te man loolu jàpp naa ni foog ñu leeral ko quel que soit par lu ñu bëgg def mooy nga déposer une plainte en faux en écriture publique man document bii ñu ma jox ni ma Amadou Ba yow député bu bees lii mooy sa règlement intérieur assemblée nii lay doxe mhm. daf cee am ay disposition yoo xam ni yoon dugalu ko ci ñu ne léegi dañu woo président président assemblée laaj ko ni ko yow lii procureur da ko war woo ni ko lii du yaa ko jox député yi document bii mu ne waaw mu ne ko mais disposition yi ci nekk dañu ni bokk ci nan la affaire bi demee kan moo ko bind kan moo ko ci dugal parce que mën nañ ko entendre le président. ah nee na dafay jël mbir yi en main. non moom buy jël en main na dem ci procureur mu wax ak moom. dans la mesure wu nee naa la nekkatuñu en session dañ ko mënul arrêter le député mais mën nañ la entendre c'est ça la nuance. d'accord le premier le mi président de l'assemblée procureur mën na ko entendre sur cette affaire. mënuñu ko placer en garde à vue wala détention wala dara mais mën nañ ko entendre. jébbal dossier am juge d'instruction juge d'instruction bi ni ko dinañ la topp ci lii. Mm. mais nu ko def détention parce que session bi tëj na samedi. te lool c'est très important moom mu wax ñu. Mm-hmm. fan la jëlee fitu di joxe euh, di bàyyi assemblée di fonctionner ci benn règlement intérieur. Mm-hmm. réponse donc lettre ba Guy Marius Sagna déposé woon ca Amadou Ba bi Ousmane Sonko bëggee ñëw loolu la ko bindaat même lettre bi ni ko yaa ngi ñëw assemblée boo xam ne règlement intérieur bi baaxul monsieur le député li nga wax de dëgg la waruma ñëw assemblée te règlement intérieur bi baaxul kon nag dinaa xaar ba ñu defar règlement intérieur bi. defar. bi dégg naa ñu ne am na ay initiatives qui sont en cours. Mhm. pour déposer une proposition de loi pour delloosi ko mais ça n'épuise pas la question. Mhm. mooy bii ñu yore nii kan moo ko bind. ak pourquoi ñu introduire ci ay dispositions yu baaxul. mais lan moo mën a épuiser question bi. mais nee naa il faut yoon leeral ko. dëkk yow mën nga taxaw déposer plainte. non bien sûr mais citoyens yi sax. mais lan moo est-ce su ma neexoon mun naa dem nii ma déposer plainte. pour ñu leeral faux la parce que c'est un yow am nga intérêt à agir parce que quand même citoyen nga. li dañu bëgg a comprendre dëkk bi ñu comprendre ni. allez dëkk bu to lu toll ni assemblée. pour vous dire suñu état dëkk fan la toll. depuis bu doon waxuñu la ko le député Mamadou Lamine jàll dafa interpeller le mm. président non seulement ci tribune bi ni ko attention ye yaa ngi bëgg a continuer mm-hmm. sunu règlement intérieur bi baaxul mm-hmm. am na ay dispositions yu ñu ci dugal te jaaralew ñu ko ci yoon mm-hmm. parce que comme que loi organique la boo koy modifier dafa am un quorum trois cinquièmes des députés ñoo war a voter nga yóbbu ko conseil constitutionnel ba conseil constitutionnel valider ko kooku c'est obligatoire c'est une organique da ngeen koy voter yamu ci voté bi de. Mhm. nga jébbal ko conseil constitutionnel conseil ni baax na parce que c'est tellement important mhm. yow nga ñëw éditeel sa bopp yokk ay numéro mhm. fu amoon numéro 97 nga yokk ci benn biis. jël biis ba yóbbu ko ba fa nekkoon mais loolu dëkk mën na doxe noonu lu toll ni assemblée. léegi ñu ne kenn du laaj maam Diop le président mais lii kan moo la ko édité loo pourquoi nga joxe un règlement intérieur en vigueur boo xamante ni c'est base sur du faux yéen a ko defal seen bopp sans ngeen respecter les procédures légales. loolu dañ ko war a saytu donc coow li ci loolu la jóge la même lettre bi euh, Guy Marius Sagna bindoon Amadou Ba. Mhm. moom la bindaat Ousmane Sonko. cette fois nag Ousmane Sonko tontu ko ni ko effectivement man du ma violer loi seen règlement intérieur su dee yéen dangeen ngeen di loi mais du ngeen ma woo pour ma dëggal ko parce que su ñëwee sur la base du faux règlement intérieur. def déclaration politique général am ñoom nu ñu ko sax def motion de censure mu ne man état la séparation des pouvoirs mayu ma. yéen ngeen jalgati yoon ma ñëw dugg biir assemblée di ko dëggal changer leen ko seen bopp vous en avez les moyens loolu moo indi coow li de. lim ci teg nag mënees na ko defee feneen nag. noo defee feneen bi moom politiquement dafa ni ginnaaw narumaa ñëw parce que ñoom dañ ni ko au lieu ñu ne ah ñun kat dañoo juum mais dañ ni ko da ngaa amul déclaration politique général moo tax nga ni doo ñëw mais mën ngaa ñëw mu ne leen déedéet du question bi de dinaa leen wat ni am naa déclaration politique générale pare naa mais ginnaaw mënu ma dugg ci yéen dinaa woo peuple bi liiral leen lan laa bëggoon wax assemblée lan moo ci jaar coow loolu. Ablaye Mbow. waaw je pense que euh, la chose la plus simple mooy la ñu rocce rek ñu rofaat ko mu jeex. waaw <laughs> mais ça n'épuise pas dañoo war a waaw waaw d' accord d' accord naa su loolu yëpp de. non d' accord naa d' accord naa su loolu yëpp de. Mhm. mais dama ne disposition yu ñu rocc. bu buñ ko delloowaatee place am. Mhm. defe naa ni euh, cool yi dinañu wàññee ko bokk te dina permettre premier ministre war a mën a euh, ñëw def déclaration de politique générale am. hier du moom du lu mu dégg cest à que lu mu dégg laay dëggal. que ni démb l'honorable député Nafissatou Diallo du parti démocratique sénégalais. Mhm. yónnee nañu bataaxal wax nu wax ñu wax nañu wax yëgal ñu ni am na ñaari député wàllu yu dugal li nga xam ne mooy proposition bi mën a tax ñu mën a dellu si loolu. je pense que assemblée nationale nag fa ñuy wotee loi dëgg-dëgg loi yëpp fa lañ koy wotee. Mhm. foofu nag waruñu seetlu loo xam ne dañ ko jalgati jëm si wàllu loi. parce que tamit bu ñu fàttee euh, Fatima. Mhm. yàggul tuuti présomption présomption la ñu am maanaam dañoo njortu ni. dañoo njortu si wax yi ñuy dégg ne juge bi ak juge bee nee nañu leen dañ leen guerre. assemblée nationale réew ñu def procédure d'urgence def li muy def commission des lois ñëw wax li muy wax si Amadou Ba premier ministre nangam sangam et cetera et cetera. Mhm. ap ñu ne reporté nañu euh, élection yi. Mhm. sur la base de présomption comme ça. mais assemblée nationale boobu la tamit. donc je pense que crédibilité bu mu war a bu ñu war a conserver nag. ba keroog président di jël décision bu dee app bi jot na. nga xam dina dissoudre nga xam du dissoudre mais tamit bu ñu yàq crédibilité boobee. crédibilité boobu dañ ko conserver pour mën a jëm si li nga xam mooy l' essentiel et mooy créer les conditions pour que loi yi ñu koy appliquer waaye si kaw tamit loi yi ñu tënku si ndax am ñoom ñooy voté loi yi. alors moo tax honorable laaj mooy naka la ñu mën a def pour. pour rendre crédible cette assemblée nationale ak itam su fekkee dañoo yegg ci soppi assemblée nationale bii fi nekk indi fi leneen en cas de dissolution. Mm-hmm. donc lan mooy urgence bi pour au moins ñu dellowaat l' assemblée son lustre d'antan comme ni ngeen ko doon waxee ak des débats d'idées yu yu am solo. waaw xam nga déjà urgence bi mooy un exercice de clarification ndax yow assemblée nationale bu ñu laa gagné ci élection nga continuer être majoritaire. loolu yëpp ci erreur calendrier la rek su doon président Macky yokkul woon deux ans yi mu yokkoon 2012 kon heure bi du demee nii day am coïncidence quinquennat bi dafa war a am correspondance am ci législative boo defee élection présidentielle waroo cee mën a teg ñetti weer te organiser wa législative mu clarifier parce que kuy gouverner da nga soxla majorité kooku déjà benn la mais le plus important te loolu question politicienne yi warul tax il faut ñu réformer assemblée nationale dans le sens de donner plus de pouvoir à l'opposition gis nga l'opposition parlementaire actuellement tey xoolal le bureau keroog li mu def décision bi gën a graaw après li ñu def nii hmm. yow loi organique sur la loi de finance article cinquante cinq la ou cinquante bi ni la hmm. bala ñoo ubbi examen loi de finances dañuy def li ñuy wax le débat d'orientation budgétaire hmm. obligatoire pour que gouvernement bi wax député yi loi de finances bii ñu jëm duma leen bett dama leen koy jox war leen les grandes orientations ngeen commencé bind seen observation ne ministre de l'économie et des finances yow yaay ñëw ñu ne la hé yow de sa deb document bii nga jox ni fii nga bëgg a jëmale loi de finance bi d'accord uñ ci parce que gis nañu éducation nationale éducation li nga ko jox néew na bëgg nañ bokk nga jox éducation parce que foofu lañ toll bëgg nañ moo moom it mu am le retour des députés parce que ñoom ñoo koy voté yow nga xëy ni waaw le ministre daf jour nga convoqué ba pare de ñëpp ñëw nga ni waaw démb de premier ministre daa bind ci page Facebook am page Facebook c'est pas un acte officiel mm-hmm. c'est Ousmane Sonko le premier ministre waxul acte officiel nekkul biir assemblée mm-hmm. nga ni dafa bind ci page Facebook am di tontu ab député muy presque une un, un truc privé mm-hmm. ndax saisiru ko officiellement député du saisir premier ministre ba du loolu question écrite nga koy bindal wala question orale nga ni sur la base de Ousmane Sonko am na lu mu bind ci ci euh, Facebook am mhm. déclaration d'ori débat d'orientation budgétaire ajourné président loolu la def gars yi ni ko defal ndànk lii on parle de l' des finance de l' état la loi de finance nga ni yow da ngay tontonte nga bañ a appliquer une loi en représailles lu premier ministre bind mais dëkk bi la grave mais yow tontonte premier ministre ak appliquer loi tey jii conseil constitutionnel su ne woon ah yéen assemblée da ngeen am ngeen présomption dafa am juge yu ñu corrompre mhm. ñun jugeetuñu ku fi indi document duñ ko laal conseil constitutionnel ñeme na lool mën nga génn nga ni y a un homme politique bu saaga l'institution judiciaire ñun jugeetuñu dañuy toog pour wane suñu mer lii mooy gravité opposition bi ñuy agité wu jamono yii di wax ay débat yu mais loolu la ñu waroon toog ñu ne mais assemblée nationale ni du appliquer une loi pour répondre à un à une provocation politique lu mu lu mu qualifié d'un acte discourtois du premier ministre qui a été fait en dehors de l'assemblée et en dehors des procédure loolu jàpp naa ni bu doon beneen dëkk la moo lay wan ni régime ñi nekk tey au pouvoir pourquoi la dissolution est nécessaire intérêt réew mi taxu leen a jóg yéen bindal defal déclaration assemblée ñaata yoon la bind ay déclaration di euh, arranger la euh, kii Euh, juge constitutionnel yi naan leen li ngeen jugé baaxul mais ñoom ñoo bindoon ni assemblée nee na hmm. nañ bind une déclaration ni ko premier ministre lii nga ñu bind d'accord uñ ci dinañ la tontu mais quand même exam application d'une loi débat d'orientation budgétaire pour wax su réew mi fan lañ ko nar a jëmale hmm. nga ni yow da koy éliminer sur la base da ngay tontu un président nga violer la loi en tant que bureau de l'assemblée vous violez une loi pour tontu une réponse politique loolu c'est extrêmement grave. est-ce que du firnde intérêt bi nga xam ne mooy ñoom seen intérêt bopp lu weesu li ñu naan les députés du peuple. non non bien sûr mais nee naa la moo tax ñu war a clarifier l'exercice ñoom tey seeni programme yëpp mooy nan la ñuy toogee ci assemblée bi c'est du jamais vu daal on fera tout pour dindi solution ci changer l'équilibre constitutionnel bi am. loolu mooy seen problème de seen problème nekkul loi de finance bi mhm. ak transparence ak exigence yu bees yu ñuy teg gouvernement ñoom mën nañ grappiller ba am majorité loolu nekkul seen i problème xamul li seen xam nañ ñi bu ñu demee élection ils vont tous perdre ñoom quatre majorité bi seen i place ak seen i poste opposition bi am nañ doole de. waaw ñoom sur la base des élections présidentielles ak de la recomposition politique en cours ku nekk ci ñoom xam na ni bu ñu demaatee élection ils ont très peu de chance pour mais pour éviter majorité minorité et cetera euh, donc ndax mun nañoo coupler élection yi fi nekk yëpp à parti de maintenant. loo yooyu ci lañ bëgg a jëm pour rationaliser ko. nga xam ni mais le voilà quinquennat bi boo defee élection présidentielle soo paree war nga mën a coupler. Mhm. législative ak euh, élection collectivité yi foog ñu dellu si. pour nekk un calendrier boo xam ni dëkk bi le débat politique du ko absorber l'essentiel des questions. que débat yi nekkati leneen une fois qu'on a fait ça clarifier nañ situation bi on passe directement à autre chose mm-hmm. le pays peuple est souverain su ko neexee mu jiital président jox assemblée bi euh, beneen force on fera avec y a pas de souci mais il faut qu'on arrive à ça loolu moo tax cette année bi war ñu bàyyi élection législative di am après 2024 mm-hmm. parce que le prochain régime bu ñëwee sur la base des cinq ans da ngay amaat difficulté mm-hmm. pour dissoudre assemblée pour assemblée boobu donc que droit de dissolution vraiment nekk loo xam ni c'est exceptionnel. d'accord. mais parce que y a un calendrier électoral. qui permet que président bu ñëwee mu mën a poser askan wi ni leen yéen a ma fal jox leen ma les moyens législatifs ma diriger jox leen aussi ñi ma jàpp ni ñoo ma mën a yoral collectivités yi comme ça lépp nekk benn package nga solde ko ci trois mois limiter xaalis bi ñu ciy dugal et puis limiter des débats sur des questions. sans intérêt ñu restaurer assemblée nationale bu bees dans la constitution avec la nouvelle constitution jox ko un règlement intérieur qui permette à l'assemblée mu contrôler l'action du gouvernement et que député yi mën a am une indépendance réelle vis vis de l'exécutif ngi ñëw ci yow dernière question euh, naka nga gisee sortie yi nga xam ne mooy opposant yu bees yi ndax nag ñu ngi